dal leen jàmm mbégte la ñu saa su ne di ñoo ak yéen ci seen émission bi nga xam ne moo di sorti ci télé bi ngeen taamu di leeru jamono Walfadjri tey nag ñuy dalal ki nga xam ne moo di Ibrahima Condetto Niang euh, bi nga xam ne nag jiite woon na fi FNPJ nekk koo xam ne it nekkoon na ci euh, LONASE nekkoon na PCA bi nekk te ci parti démocratique sénégalais Ibrahima ñu lay nuyu. maa ngi lay fay Adjaratou Ndeye Assoubou Euh, suñu euh, gan gi nga xam ne nag moom la ñuy dalal ku mu doon Abdoulaye Bob bisimilah ci nataal bi. gannu sorti tey tudd Ibrahima Condé Niang Ibrahima ndax mën nañoo xam yow yaay kan. dama génne si li ñuy wax mélange brassage humain sama yaay dafa laal si béninoise laal si suusu guinéenne laal si portugais benn góoram la mu tuddee ma magam Ibrahima euh, papaam Ibrahima Condé di magam. fan nga cosaanoo. ñaa nga bawal bawal. waaw exactement tamit waa Kayoor lañu cees fan nga juddoo. maa ngi juddoo Bargny. kon lébu nga. lébu bu bari ñi géej laa. Ibrahima Condé ñaan dañoo gis ne ne buy dox dafay soox. loolu lii lan moo ko waral. ma newee xale dama feebar daf ma dab ma def crise euh, may raam. bi école jot may gis samay moroomu lii di jàng ma commencé di jooy di sono sama yaay. ñu def ma yenn opération def yenn intervention yi ba ma commencé di jóg. parce que tëdd rek laa mënoon. gannaaw loolu Ibrahima ndax xarañoon na ci wàllu njàng. ma mosuma jël deuxième de ma classe j'ai toujours été premier. nga def njàng mu kawe. après sama bac nag ma dem ma def un une année sabbatique après dem France jàngi. lan moo la dugal ci wàllu politique. président Ablaye Wade en 2004 ne il faut moo ñëw. liggéey sama sama dëkk. mu wokk seen émission sortie Ibrahima Condé Teugnane di jàkkaarloog Ajaratu Ndeye Astou Gueye jëf. ñu lay gërëm bon nag lébu bu bëgg ceeb ak jënu jaga yooyu nag lañuy ñuy dalal nit yi tey jii mu di Ibrahima Condetto Niang mi nga xam ne nag moom euh, fan yi euh, la am euh, li nga xam ne moo di non-lieu ndaxte moom Ibrahima Condetto Niang mi nga xam ne moom la ñuy dalal tey jii ci seen émission sorti bokk na ci ñetti nit yi nga xam ne nag mujj nañ leen setal ci ci fan yi nga xam ne moom la ñu génn ci ay lubal yoo xam ne dañ leen ko doon tuumaal ni dañu ko lubal mujj gi ñu bàyyi leen mu bokk ci ñi nga xam ne ñoo di Euh, moom ñu euh, bàyyi ko seetal ko naka it noonu bay la wan ak nga xam ne moo di euh, Awa Ndiaye loolu nag tax tey ji nag ñu di ko di di ko dalal déjà xibaaru ne tëj nañ la lu toll ci juróom-ñaar ba ci juróom-ñetti weeru kaso mm-hmm. ci ci ci mu gi ñu ne seetal nañ la lu mu la def ci yow bi bi ñu bi la biñ biñ la setalee juge bi ne la setal nañ la ci mbir mi sa premier sentiment lan la la woon sama première centiment moo mas a nekk sama sentiment si njëlbeen mooy dama mas a ne affaire bi na ma concerne nii de près nii de loin masuma si tilim ba si set sentiment d'une justice rendue laa am biñ ko defee à part ça sant defuma benn effet parce que bettuma parce que ku deful dara euh, amuloo looy tiit waaw yaa ngi ne defoo defoo dara ñu def la non-lieu mhm. mais aussi li ci li ci jaaxle mooy ne ARMP ci rapport bi nga xam ne moom la defoon en 2008 ci lañ ne ci lañ la taxalee ba boobu boobu ba tey ñu yoon di la teg loxo di la topp euh, ci ci loolu aussi ARMP kuréel gi nga xam ne daanaka mooy yoonal mooy euh, réguler tout ce qui est yooyu ça veut am na ci lu mu jàpp. Mhm. Euh, le li nga xam ne moom la ARMP di. di di tuumaal ba def ko ci këyit ne loolu lañ lay jàppee. Mhm. qu'est-ce qui s'est passé par la suite ba mu demee nii expliquez ñu. Euh, mbiru ARMP boobu euh, nit yuy sos la. yuy sos te dinaa la jox rapidement ay chiffres yuy wone ka sos rek la nit yu mal intentionné yuy def rapport ARMP boobu date de 2008 comme ni nga ko waxee sànq si njëlbeen 2008. man ñoo ngi ma nommé LONASE le 31 juillet 2009 ma jël fonction le 13 août 2009 kon rapport boobu manuma concerné loolu rek laay tontu par rapport a rapport ARMP boobu am na mais bokkuma si. 2009 nga tàmbali liggéey LONASE. 31 la ma lañ ma nommé par décret def ma administrateur parce que président Abdoulaye Wade mënu nommé kenn président mënu nommé PCA kenn dañ lay nommé. administrateur nga dem ci conseil d'administration bi ñu nangul la nomination bi ñu valider ko nanguluñu ko ñu rejeter ko parce que mas na am sax l'ONAS avec le cas de Cheikh Touré président nommé ko PCA conseil d'administration bi nanguwuñu ko ñu rejeter ko. waaw mais loolu loolu lu mën a nekkee ci réew moo xam ne réew démocratie la te ñu jàpp ne suñu justice su réew. Mhm. Euh, am ci xel bu dal que justice bu jaar yoon la. des mhm. hommes intègres ñoo ci ñoo ci ñoo ci nekk. Mhm. Euh, nga jàpp tuumaal gi ñuy tuumaalaatee. Uh-huh. ci rapport ARMP 2008 bi sa yoon new ci. newu si yow 2009 ci nga am ndombal tànku PCA LONASE. voilà. Euh, loolu nu mu nekkee. <laughs> Ah, ah gis nga ko rapport ARMP de 2008. d'accord man j'ai pris fonction le 13 août 2009. d'accord bi nga jàkkaarloo. 2008 mu ma fekk ma nekk PCCI. d'accord bi nga jàkkaarloo juge bi exactement lan lañ la doon reproché. ci parce que nee nañ dañ la doon reproché ne da nga xaalis luubal euh, concrètement liñ la doon reproché. reproché nañ ma ci charge yi ñu mën a retenir reproché nañ ma de détournement de deniers publics d' association de malfaiteurs faux et usage de faux en écriture privée publique yu bare daal charge yu bare. mais loolu euh, ajaratu ndey astu yaakaar naa ku jàng xàmmee ràññee tuuti war nga xam ne PCA du ordonateur du exécuteur des recettes doonul dara ci gestion wu société donc boobu fekk na politique bi bëgg a wu ci justice bi dugal ci seen loxo peut-être dig nañu askanu Sénégal il fallait ñu jàpp yenn dignitaire u PDS am nañ dossier bu leen tombé sous la main et dossier boobu dinaa si ñëwaat tuuti en arrière man maa ko déclanché wan naa la ay documents yuy firndeel que dossier bi man maa ko yóbbul njiitu réew mi président ak premier ministre photo yaa ngi nii di ko attesté. dossier ban dossier. biñ ma jàpp biñ ma nee. voilà bi nga nga yow la ak. Euh, Souleymane Ndéné baa ngi noonu mu teg ko si droitam. Mhm. su su leen neexee ngeen ngeen joindre ko au téléphone. dina ne man maa génne dossier bi mu dénk ma dossier bi pour ma piloter ko man maa rédiger maa def draftu plainte bi. man ma fixé même trois 300 millions yi xam ne dañ ma ko toppee man. d'accord léegi. voilà da nga ñëw en 2009. Mhm. ñu fal la PCA Lonase. Mhm. nga ñëw ci sa bi nga xoolee nga gis ne am na ay yorin bu jaarul yoon y a quelque chose de euh, pas mhm. loolu nga jàppal ci këyit. nga leen loolu nañ ko leeral nga dem jébbal ko. moom euh, maître maître euh, Souleymane Ndéla Ndiaye. dossier boobu sax du dossier ARMP. dossier bi ñu ma téye téye bay la téye ñeneen du dossier ARMP. dossier société bi ñuy wax panafricaine des jeux la ne dañu bëggoon jaay Lonase dossier boobu la loolu lañ ñu toppee woon ma ni leen man manu leen ma topp parce que maa génne mbóoti ni ñu ko ne maa génne dossier bi. bon yow bukk bi da ko génne woon pour mu màttaate mu far màtt la. waaw defe naa noonu la mais génne ma ko pour mu màttaate dama ko génne woon parce que dañ ma teg PCA pas pour ma fay toog rek di feesal fauteuil bi dañ ma fa teg pour may contrôler à di orienter euh, top management nu LONASE. donc sama sama sama liggéey laa doon def yaakaar naa ko. Mhm. Euh, ban intérêt moo am ci nit par exemple di la taxal yow Ibrahima Koné Niang oh. ci loo xam ne jàpp nga ne defoo ko. peut-être nit kooku yaakaar na def naa ko dara lu ko metti ba ni mu waree fayu noonu la mooy mu sosol ma et ñu traduire ma en justice li ma siy ñaawlu rek mooy justice balaa ñu koy utiliser dañu war a saytu bu baax am preuve yori kayit doog topp nit ki. waaw parce que ci dossier bi yow ak Baylawan. Uh-huh. Euh, yéen la ñu bokkoon doon leen topp ci mbiru Lonase. Uh-huh. daanaka yéen ñaar la ñu setalandoo. Uh-huh. ndax euh, lii sa kaa mooy kaawam tamit. mooy jàpp ne dañ ko dañ ko tooñ. si dossier boobu mën naa wax euh, si dossier boobu côté bay la man ma si prononcé man du ma wax waxi nit. yaakaar naa di ngeen am occasion interpeller que si man li ma si intéressé ah li ma maîtriser mooy dañ ma tooñ ba may dëgg. bi nga ñëwee en 2009. Mhm. nga gis ne am na lu jaarul yoon. Mhm. te xam ne daanaka euh, ci yorin bi jaarul yoon nga demoon ci Souleymane jaay Ndiaye jox ko dossier bi ndax dossier boobu kiñ ci incriminé kiñ ci incriminé ci dossier bi kan la. kiñ ci yow instant boobu kan moo ne woon directeur bi passage ci ci boobu noonu. Euh, monsieur Bay la woon. Bay la woon moo nekkoon bon di nga demee woon ci Souleymane Ndéné Ndiaye jox ko dossier Lonase bi. Mhm. pour gis nga gis ne am na lu jaarul yoon yu am ci mbiru Lonase. Mhm. Bay la woon la woon nga jàpp ne moo def woon ay mbir yu jaar yoon. dëgg la d'accord mhm. mais mujj gi affaire bi këppuwaat ci sa kaw. qu'est-ce qui s'est passé. laaj nit yi. parce que biñ may arrêté le 31 juillet euh, bi ma ki may arrêté parce que bëgguma tamit tudd tur ki may ki ma arrêté bi mu may ne dama obliger mot pour mot dama obliger déférer la auprès du procureur parce que dama jot ay ndigal si kaw dama doon rey mu ne ma bul ree parce que mbir mi jëluloo ko au sérieux mais war nga ko jël au sérieux donc loolu mooy wane que mbir mi daf lu la bett man la mm-hmm. et xaaruma ko woon. biñ la falee en 2009 PCA lan moo nekkoon sa relation ak directeur ba nga fekk di bay la woon. ay relation yu extraordinaire bay la bay bañ na ba daanuma jaar si turu directeur moom tamit du jaar ci turu PCA bay la euh, sama mag la. bay la maa ngi fàttaliku gën naa fi tuut bi président bi secretaire général national PDS euh, en l'occurrence le président Wade daan organiser meeting ci centenaire bi bay la si ñi ma daan yëkkati teg ma si mbaggaam la bokkoon pour ma mën a gis euh, tribune bi wala gis nit yi donc loolu laa ko jàppee euh, relation yooyu donc euh, complicité moo amoon si su su gestion wu loona bi ma ñëwee dalal na ma bu baax. d'accord euh, masuma créer problème. ngeen bokkoon fooy nga ñëw 2009 nga nga bi nga joxee dossier bi maître Souleymane moo nekkoon réaction boobu fekk na jóge na fa. bi ma découvrir euh, li jaarul yoon. boobu fekk na mu jóge fa. Mhm. mu ñu remplacer ko par Amadou Samba Kane. d'accord. muy dégg dafa mel ni da nga da nga gis parce que boobu tey da ngay xaw a da ngay taabal ji rek dama bëggul ñu dugg ci affaire yi. masuma wër taabal bi man kay dugg si affaire bi moom ma tax a jóg. nañ ci eh, nañ dem carrément. Uh-huh. est-ce que est-ce que est da jàpp ne dafa am des personne tapis dans yoo xam ne dañ la bëggoon a nuyeer bëggoon la yàqal ak ñooñu ñan lañ ak ban intérêt lañ ci am. loolu du ma la mën a wax seen tur mais am na ñett ba ñeent nit yoo xam ne sabab nañu sabab nañu sama jàpp. pour yóbbu ma prison xam naa leen identifier naa leen su wax bi jotee dinaa ko wax mais Ndeye Absou li tax ma ne sabab naa ñooñu dañu sabab rek parce que am naa gëm boo xam ne yonante bi ci alxuraan daf ñuy wax que sache ce qui ne t'a pas atteint ne t'était pas destiné mais ce qui t'a atteint ne manquer et que la victoire accompagne l'endurance loolu laa gëm profondément donc damay ne ñett ñeenti doomu aadama yooyu seen sabab la rek suñu boroom moo dogaloon ma war a si sama trajectoire jaar kaso ma jaar si. ñett ñooñu lan lan nga seq ñoom ak loo leen loo ak lu loo peut-être déranger naa leen si ay dossiers yu. lu passé si sama jaar-jaar dérangé naa leen peut-être politique bi wala mas naa leen wax loo xam ne neexu leen ñoom ñu yaakaar que elio ñu def ni ko Sénégal askan bi bëggee la réduction des comptes ñuy def euh, des règlements de compte. mais est du du peut sa xalaat mu demee noonu. sama xalaat demewu noonu li ma la wax lu wóor la parce que nee naa la toog naa ñetti at kenn dégguma waxuma pourtant pourtant affaire euh, non-lieu bi nga wax nii. Mm-hmm. que dañ la dañ leen setal setalandoo yéen ñett. Mm-hmm. mu di Awa Ndiaye ci coow loolu ma fa amoon ba ñenn ñi jàppee na coowal coowal kudd la. Mm-hmm. Euh, ak ki nga xam ne moo di baylawan ci mbir ci mbiru Lonase bi ak yow. jamono ji mu yemool ak euh, prémices yi nga xam ne moo ci am ñu bari ñu jàpp ne la ci wàllu justice mais. wàllum neexalaate la aussi ci côté ci côté politique. Mhm. parce que ñenn ñi jàpp nañu aussi dañ doon waa dafa ma ni daal jubboo seen dañu xawoon da ngeen xaw a neexoo léegi ak nguur ji. Mhm. ba mu nekk décision de justice boo xam ne genre neexal la parce que est-ce est que waajoo dem affaire xel xalaatu ko. Euh, mooy li ma loo tey dajewoo fekk président Macky Sall nga daje si kenn euh, kenn ci régime bi. yàlla mi ma tim xam ne dajew ma président Macky u ou dajew ma kenn si régime Macky Sall. lu tax lu euh, ñu setalandoo leen. mais moom laa la loolu kañ xaw ma ko lii ba leer man si bi ma maîtriser man mooy xamoon naa day yàgg rek mais ma suma tilim que damay set loolu moom aw ma si sikk sàkk daf ma leeroon parce que bu vide. mënuloo ko exploiter day fekk dossier bi am tuuti sax dëgg wala tuuti tappale nga mën kaa enrober ah ay tappale pour mën kaa génne mais dossier bu vide mënuloo si def euh, lenn. mais nan nga mën a déranger nit ñi yooyu ngay wax. mu ngi noonu wax ñu wax la wax ba mënuma la wax. waaw ñu nekk ci politique bi la ñu nekk. ñoo ngi ñoo ngi si état bi ñoo ngi si nguur bi. ci nguur gi actuellement. ñoo ngi si nguur bi actuellement. bon parti parti parti pouvoir. bi waa ah parti pouvoir bi. waaye loo mën na mën déranger parti pouvoir. xanaa li nga ma ni peut-être du man maa leen déranger ma ni peut-être jaar-jaar yoo xam ne waxoon naa u def naa leen lu leen metti woon ñoom ñu koy jéem a fayoo nii. bon ay mbiru opposition la sax opposition pouvoir la parce que man ku ma xam au PDS j'ai toujours adopté une opposition républicaine yéen euh, taskatu xibaar yi xam ngeen euh, tàmm woon trop presse. donc du def une opposition systématique donc man fu wax jotee wala ñu attaquer le PDS wala le PDS nekk en danger ñu ñuy xoxota wala buñ xatal laay génne riposter mhm. nga dund nag euh, euh, bien que setal nañ la. Mhm. officiellement nga dund ay weer ci kaso bi. Mhm. sa dundin ci kaso nu mu demee ak yow kana nekkoon. kaso bi dund bi jàng naa si lu bare. jàng naa si lu bare bi ma si gën a neex bi ma si gën a. tax ma gën a si dolli di sant suñu borom mooy waxtu yi ma daan manqué si julli ak si jaamu suñu borom loolu amatuloon euh, jàng naa fa lu bare xam naa fa tamit ay nit yu baax et di profiter au passage ku mel ni vieux Boubacar Ba doyen Ablaye Faye Sarr Ndongo Diaw Luc Nicolaï euh, Thierno Ousmane si euh, Thierno Konaté ñoo ñëpp bokkoon naa na ñoom li Yandé Diakité euh, ñoo ñëpp ñoo bokkoon euh, cellule parce que cellule de 49 virgule 49 mètres carrés la woon bu ñu denc euh, entre 14 et 19 personnes 14 personnes en temps régulier et su nawet bi duggee ñu nekk 19 personnes si 49 virgule 49 mètres carrés. conditions conditions yoo xam ne fu norme internationale yi di laaj. ne prisonnier bu nekk war na am espace entre trente cinq mètres cubes et quarante cinq mètres cubes d' espace Sénégal prisonnier yaa ngi am entre quatre et cinq mètres cubes espace chambre yu mel ni chambre neuf dix trois quatre. Euh, ñuy yóbbu doomu aadama yi des chambres de 71 virgule 743 mètres carrés ñu si def 250 doomu aadama loolu yàkkaar naa jéggi na doyo mm-hmm. yow kana fa nekkoon ci ay kilifa comme ni nga ko expliqué sànq xam na am na am ay tur yoo film lan lan moo nekkoon seen relation relation comme ay frères tu sais cachot dafay rapproché nit parce que yeenay bokk naxar yeenay bokk mettit bi donc ñenn ñi xamoon naa leen si biti ñu mel ni Ndongo Diaw Kane Diallo donc ñenn ñi si biir kaso bi laa leen xamee ay nit yu baax yoo xam ne sant naa bu baax a baax suñu borom bi ma bi yàlla defee ma xam leen. Mhm. si sama àddina bi ngay euh, bi ñu lay jàpp nga nekk ci euh, ñu lay jàpp euh, di la tuumaal loolu ci yenn condition la la fekke woon ak jàppin bi ni mu demee. mu ngi ma fekkoon ci condition yoo xam ne am na soci consortium bu mag bu nekkoon bitim réew bu ma waroon commencer liggéey le 23 août 2012 yàlla def ñu teg ma loxo le 31 juillet 2012. benn société. société bu mag bu nekk Europe. dama euh, fa waroon nekk seen euh, directeur Afrique. directeur boobu. waaw hmm. si diggante bi yàlla def ñu téye ma. mais euh, <laughs> Afrique après ci diggante bi yàlla def ñu téye la. du société Afrique société bu nekk Europe. waaw département Afrique. voilà ñu après ñu ñu bàyyi la setal la. waaw. waaw léegi ñu bàyyi ma setal ma léegi ma war a peut-être dowaat ci société bi lijjanti walla ut yeneen société pour liggéey. Mm-hmm. parce que politique du sama profession. à part LONASE PCA LONASE nekkoon nga fiit euh, njiitu FN FNPJ nga bokk ci ki ko njëkk dirigé euh, FNPJ aussi bu bari nañu jàpp ne daanaka dafa foon dara. waaw parce que te comme un échec. sa bopp sa jaar-jaar ci bopp FNPJ loo ci tontu. xamoo euh, balaay muy gënoon neex. ngeen interpellé personnel ba fa nekk wala jeunes yi fa nee woon période bi ma fa jaaree FNPJ euh, ba ba biñ koy seeyal je crois ñeenti njiit la ma sa am mais dafay mel ni tout le temps Ibrahima Condito ñaar rek moo fa jaaroon maa doon ñaaree leen njiit bi bi may dugg FNPJ taux de recouvrement bi delloo xaalis bi était à 2,03 pour cent bi ma fay jóge bi ma fay jëlee le 30 juin 2006 taux de recouvrement bi était à 23,63 pour cent bi ma fay jóge bàyyi naa fa emploi yu toy ni 12 248 emplois financé 606 projets et li may wax maa ngi jël comme témoin à l'époque le président du conseil muy le président du comité de gestion le ministre Aliou Sow d'une manière très ramassée mën naa la wax créer financé naa fi cinq pharmacie tey soo leen taaloon seen oto Walfadjri man la bii maa ko créé bii maa ko créé bii maa ko créé 8 cabinets dentaires 16 cabinets consultants juniors 1500 permis de conduire nee naa sama bilan ma suñ ma yeewoon 4 heures du matin sama def sama bilan et yàlla atte nañu bi ñu ma jógee FNPJ kenn déggatul FNPJ quasiment toute prétention mise à part. mais est-ce que yàqu FNPJ bay dem. yàq. ña fa nekk dem leen laaj leen ba pare même agence bu bees bi ñu créé si sama magistère ak ah, ñi ma wóoroon lañ ko xalaat man maa jox PTA bi rapport bi wax président Wade février 2005 mu jox ko son conseiller financier ma ànd ak sama staff wax ko que FNPJ ANEJ ak ah, yeneen ak yeneen niñ koy doxalee baaxul suñ ko changé wulee nañ ko def benn kuréel si lay gën a amee. efficacité si lay gën a am pertinence si lay gën a am efficience mm-hmm. et que yàlla def na 2005 ba tey mu jëw ñu koon réaliser c'est avec avénement Macky Sall la ñu agence yëpp pour monte que l'État est une continuité mm-hmm. ba pare bul fàtte nday ajaratu nday asu soo defee archives yi su suuf lu tax ñu jëlee ma FNPJ du incompétence parce que sañ jamono jooju mu commencé am jeunes yuy jël gaal di dem mu am 41 jeunes yu dee Mbour ma dem di leen jaale nekk si quai de pêche quai de pêche Mbour laa def déclaration ne la mise en œuvre de notre politique de jeunesse a échoué ñu ni Condétoo tas na jàng yi quelqu'un du du système di décrier le système Macky Sall mi woon premier ministre dem seeti jablayaat président nekkal il vient de créer une jurisprudence suñ ko bàyyee mu jaar beneen directeur ou beneen ministre mën naa def pire ëllëg donc il faut mu def loolu laa jooy looloo moom jëlee FNPJ du leneen pourtant pourtant malgré loolu euh, euh, bari na ñu jàpp ne da nga da nga yàq FNPJ que daanaka FNPJ liggéeyu fa dara moom laa fnp FNPJ su fekkee nee naa la domaine boo laal. waaw boo jàppee ne liggéey nga. Mhm. ñu bëri jàpp ne liggéeyoo. Mhm. où se la vérité. la vérité mooy xanaa laaj li ma la wax dem laaj yi ñiy bénéficier wu financement ak employé yi employé deewuñu ñoo ngi fii Sénégal. donc à l'époque da nga da nga jàpp ne yoonu euh, politique de jeunesse bi c'était pas ça. Euh, bi ma fa fekkoon ce n'était pas ça il fallait ñu changer ko. et je crois président Wade nangu na ko bi muy def campagne électorale en 2007 bi mu tollee ci état bu pikinam nee na que sa politique de jeunesse euh, avait échoué. Hmm. Euh, ce ce dossier bi euh, nu ko waa PDS dundee ak ban taxawu lañ lañ lañ la ci taxawu. PDS taxawuñu ci dara. Hmm? sama mbokk yi laa gis sama famille samay peu de xarit samay yaay yu mel ni ngoone ñooñu ñoo sonn sama sœur sama seex jumelle muy madame Aw. ñooñu ñooñu ñoo sonn si sama euh, si sama nekkinu kaso. damay dégg du PDS PDS mën naa astafurlah mën naa si euh, remercier au passage euh, ay individualité ku mel ni Abdou Kafour Touré biñ ma arrêté ñëw na commissariat central tooga man ba plus de quatre heures du matin mën naa si remercier le ministre Aliou Sow oo ma téléphone. nee ma PCA masula détourné masula li li ma lay ñaan mooy garde toujours ton profil d'homme d'état bul def déballage bul def dara au téléphone Kafoor moom ma ko paas mën naa remercier ku mel ni moom Mamadou Lamine Keita euh, mën naa remercier individuellement ku mel ni Omar Sarr parce que bii sama yaay ji waxee sonn si ba xas leen lañu doog a ñëw après cinq mois de détention ñëw seet sama maman maître Sall donc yaakaar naa ñooñu rek laa mën a remercier PDS dañ la fàtte woon daanaka ca kaso ba. fàttewuñu ma PDS euh, dafa am ay inconvénients ak nu muy doxee et loolu tant que changé wuñu ko du ñu sore. mu yéen mooy mënu am deux poids deux mesures deux catégories de militants ñii ñu leen di defal ay meeting ak ay match ñii du ñu wax seeni wax et pourtant peut-être sax ñi ñu dul wax seen wax ñoo gën a méritant. que ñi ñuy wax seeni wax. dafa mel ni parenthèse bi Karim affaire Karim ngay wax. affaire que que affaire Karim daanaka dossier dossier Karim ak lu koy xeexal ci la ñuy gën a ëppal ay coow ay meeting parce que la dernière fa président Abdoulaye Wade def na fi def def na fi meeting daanaka coow yi bari na ci Karim dañuy privilégier Karim di fàtte ñeneen ñi kumba am ndey kumba amul ndey. absolument man sama wax du ma ko raay ana Aziz Diop ana Bara Sadi ñeneen ak ñeneen. ñu daj lu nekk ci PDS ak état bi mais on a tendance à les oublier focaliser wu ci benn dossier PDS est un grand parti moi je considère maa ngi considérer qu'on la première formation politique aujourd'hui de ce pays mais war nañ am d'autres activités au lieu di daje comité directeur di wax waxi kaso tijji ak li man bi ma newee kaso da ngeen dégg sama mbir ci média yi dama ko tëddax ngor toog di dox li ma war a dox du war a régler li ma war a régler kenn marché lu ma kenn meetingu lu ma kenn dégguma fu ma onkee wala ma yuuxu dem audition dans le fond le 27 décembre 2012 cinq heures de temps d' audition ma ne sama avocat toogal xaar ma ci salle d' attente bi mën naa défendre sama bopp ma janoo le doyen des juges et son greffier malgré je considère que mon avocat est un des meilleurs de ce pays parce que mag la xarit la complice la si man donc tant que changé lu ñu doxalin boobu PDS PDS du dem fu sori militant militant la responsable responsable la ñëpp nga war a mettre sur les mêmes d'égalité xeexal ñëpp traité dossier wu ñëpp ensemble soo ko defulee rek da ngay créer ay frustration ay ci kaw ñeneen ñu teg leen ci suuf. absolument loolu laa considéré. ah la laa considéré et du yoon. bi nga gisee meeting 21 euh, euh, novembre bi passé euh, ak maître Abdoulaye Wade discours bi mu fa def commission transition beeg mbooleem la fa am parce que Sénégal yëpp si suivre nañ ko en direct ci ci Walfadjri ban réaction nga ci am. bettuma réaction mitigée réaction de positions la am. muy benn bi mbooloo bi fa nekkoon bettuma moom laa la wax léegi si njëlbéen PDS et la première force politique de ce pays ñeneen ñi di wax ay PDS amatul lii dee nañu ay frustré ñoo fa dem nangam nangam dañuy nax seen bopp le et la première force politique de ce pays balaa nga ko doon xam te ñu am une agression externe nga gis ñu def bloc donc dañuy nax seen bopp ñiy wër Macky Sall di dem si plateau télévisé yi ma leen di dégg dañuy nax seen bopp suñu continuer noonu jour dinañ am mbétti Par rapport au contenu, le format, le discours, je ne partage pas le discours du président Wade. àndoo ceeg moom ci ci ci li mu la mu fa wax. la mu fa wax commission de de de transition bi. je considère que euh, Sénégal amul élection anticipée yi. que mënoon nañu def coup d'état yëpp mën na fi am c'était tàng na jër. Mhm. daanaka kaane poobar ak asib la woon. man je trouve loolu du waxu. leader du waxu parti politique Sénégal jour bu waree am transition sénégalais yee koy defal seen bopp Sénégal jour bu waree am marche vers la palais sénégalais yee koy defal seen bopp kenn du leen ko wax donc j'ai pas aimé j'ai je n'éprouve pas je n'approuve pas du moins autant pour moi discours président Abdoulaye Wade bi muy ne su ñu waxee nit yi ñun marché vers le palais ñu marché ko que su waxee euh, tey su ko neexoon. mu def transition loolu yëpp Sénégal tolluwu fa franchement Sénégal métti na trop ba fi métti mën a yem mais góoma toll nañu fu ñuy tollee comme Burkina Faso di def transition wala di def ay ay élections anticipées. ndax moi je crois il faut il faut respecter le calendrier républicain et que euh, su fekkee même le régime en face mu ngi ñuy xoxotal mu ngi ñuy teg tuuma yu nekk mu ngi ñuy sonal. Euh, c'est de la politique nañ leen indi des réponses politiques. ndax ndax bon dafay jàpp ne comme ñi ko euh, yenn yenn ñenn ñenn ci presse bi waxee que maître Abdoulaye dafay jaawale Sénégal ak yeneen réew. non jaawaalewul jaa jaawaalewul bul fàtte. man comme comme jàpp nga li mu wax new ñu la xew Burkina Faso du du du Sénégal. Mhm. le contexte c'est pas pareil. Mhm. que discours bi. wàllu politique la dañ koy xeexee ci wàllu ci wàllu ci wàllu politique. bu ñëwee nii en tant que seen seen leader doxale nii que ba bari na sax ñoom ñi ñu jàpp ne Maître Abdoulaye Wade dafa commencé naax dafa commencé jaxase dafa commencé jaxase pédale yi. Euh, moo tax mu jàpp ne loolu je di damay lay couper léegi wax bu yàqu la ñoo ñu di wax président Abdoulaye Wade dafa naax wàdd président wàdd daa leen gën a wér. et nga ko doon xam ñoom ñu toog président Wade toog. su ñu toogee trois heures de temps dinañ jóg mu daasu dàmp seen digg président Wade day ne cooc fi mu toog suñu defoon course ñoom leader yooyu di wax wala responsable yooyu di wax ñu jël corniche bi arrivé bi président Wade mooy mooy arrivé ñoom du ñu ah, arrivé ah, góor gi nag ah, non sincèrement man du ay mag la nag tamit nag lu mu nekk nekk mais ne nekk mag taxul nga war a feebar wala suba ngay de waa d'accord waaye waaye quand même kantan ci xale du ci mag ah am na xale yoo xam ne de loolu gis nga dama koy misaal wax bi ñu par exemple bi ñuy ne wax waxeet jour boobu mu doon am mais président Wade toog na dis heures de temps ñun ñu fa nekkoon yeneen responsable yi ministres yi DG yi PCA yi yooyu ñaata yoon la ñu jóg di tappale ne dañuy dem tuuri ndox wala dañuy am lu ñuy jënd wala naa nga fu mu toog jógewu fu ñuy wax waxi xale problème bi problème hygiène de vie la bu ñu ko naxee suñu morom mais am na ñu bare leader yu bare yu daan wax président Wade dafa mag dafa naax nii mais am na ñu si euh, doxee béki mm-hmm. di dem conseil des ñoo ñu waruñu tirer la révérence wala waruñu tirer leur retraite mais président Wade leen gën a wër nañu wax Sénégal nañu wax a Sénégalais yi débat bu utile. débat bu leen mën a génnee si seen souffrance débat bu leen mën a jëmalee kanam au lieu ñuy wax des des choses yoo xam ne inutile amalu benn njariñ askan bi. Mm-hmm. amalu leen benn njariñ. nañu waxal lu amal njariñ askan bi que kii daf diw dafa màgget wala kii diw dafa jeune. ba tey ba tey ci mbiru euh, maître Abdoulaye Wade ñoo ngi euh, dégg ci presse bi euh, muy wax ne ki nga xam ni moo di Samassa. mi ñu ko aide de camp dañu ko retiré ñu ñu nangu nañ ko daal ci moom nouvelle bi nga ko déggee du mu la def. c'est décevant de la part de Macky Sall. lu tax su fekkee mooy loolu mooy wane logique gu fayantu la nekk. wax nañ ko lu ko naqari mu ngi réagir mu ngi mel ni xale boo euh, bu yor suset si gémmiñam nga nangu ko mu mer di yuuxu ñoom xam nga ce qui est paradoxal si régime boy dinaa si dugg li paradoxal te mu may def ree si régime bi benn mbir la su ma gisee un professeur imminent bu nekk si wetu euh, président nekk conseil juridique am si ñaari wax mu génne si paradoxe génne si contradiction bi président Abdoulaye Wade di ñibbise waat jóge France di ñibbi ñibbise Sénégal professeur boobu maa ngi koy dégg ci euh, seen euh, yenn euh, rajo muy ne président Abdoulaye Wade dafa war a tànn entre statuam d'ancien chef d'État ak statuam chef de l'opposition ñu dowal diiru quelque semaines ce même professeur ma dégg ko mu ni Euh, rapport commission nationale pour la réforme des institutions am na yoo xam ne c'est pas pertinent par exemple euh, président de la république warul nekk chef de parti que moom professeur boobu trouvé na que euh, remarque yu mel ni noonu c'est pas pertinent donc yaa ngi gis ah. muy kan muy Ismaïla Madior Fall. constitutionnaliste. voilà deux paradox yooyu mu li ça m'a déçu de sa part de deuxièmement régime bi. Euh, dafa mel ni dañu yor monopole rek lu baax lépp lu bon ci opposition bi walla ci keneen la nekk tey maa ngi gis ñuy ñaawlu yenn responsable APR yi walla yenn responsable euh, de benn Bokk Yaakaar di wax woy francophonie bi waroon na mën a rafet suñu gisee président Abdou Diouf taxaw ni suñu gisee président Abdoulaye Wade taxaw ni Macky Sall taxaw ni mu mel ni nit yooyu li leen ñor donc mooy lu leen intéressé mais na ñu ñëw en arrière lu rafet lu rafet si boppam teraanga sénégalaise et légendaire lu rafet suñ koy wax nañu ñëw en arrière bi président Nelson Mandela génne àddina ay Obama ay Hollande yeneen président di yóbbu seen prédécesseur ci dëj bi Macky Sall invité na président Ablaye Wade yóbbu na ko hmm. loolu rafetu est-ce que def na lu rafet est-ce que leader yooyu gis nañ leen ñu wax dara parce que tey affaire francophonie bi arrangé na leen ñuy ràccal seen bopp dina ne waaw moo waroon na gën a rafet. Mhm. su ñu gisoon président Ablaye Wade taxaw nii président Abdou Diouf taxaw nii te bii dëju Nelson Mandela amee Macky Sall invité wul président Wade nekk kaa ñu dem si dëj bi. te président Obama def ko avec ses prédécesseurs François Hollande def ko avec ses prédécesseurs loolu gënuloo rafet noo jàngatee euh, lettre kalaame jébaane bi euh, Karim Wade binde ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi ñëw ci franco fa francophonie ngir kalaame euh, président Macky Sall c'est une très bon lettre dafa am dëgg CREI moo CREI moo baaxul moo warul a am mooy li ma la wax CREI bi su continuer dinañ dugal Sénégal dans une logique dootu nekk reddition des comptes mais règlement de compte lay doon parce que koo tëj arbitrairement ëllëg su amee portion wu nguur wala am sañ-sañ ci nguur bi day fayu nañu arrêté CREI man pour avoir l'expérience avoir une idée nette de ce que c'était la CREI dama dem une semaine di ko suivre mais franchement c'est désolant dafay mel ni au théâtre ce soir nga nekk quoi sooy sooy seetaan procès CREI et c'est décevant Ah, parce que Karim Wade bi ngay wax. waaw procès Karim c' est décevant. dafay mel ni au théâtre social yu temps yu njëkk yi moom rek ngay gis si euh, créé bi. ci gënoon décevoir. non comportement déroulement procès bi parce que mënuloo téye nit plus de dix neuf mois te mënuloo te nga ne askan bi man waxoon naa ko. waaw PDS dafa mel ni seen problème yëpp dafa mel ni euh, Aliou Ndao la woon Aliou ndaw comme génnee nañ ko. non man je awma fixation si nit parce que Aliou Ndao avant muy lii CREI bi xawma ma ko si Adama aw CREI bi moo tax ma xam ko kay CREI bi laay contesté man c'est la structure c'est pas les hommes qui l'animent les hommes peuvent être d'éminents magistrats mais institution bi moo baaxul moom la ñëpp décrier c'est-à-dire Sénégal lu lu fi jar ñuy daw bay daanu ñëw nañ si pouvoir nañ nañ comité nañu commandité ay audit audit yi résultat yi ñu appliqué ko mais parce que ku gére da war a rendre compte ku gérer da war a rendre compte. Mhm. parce que mënuloo gére alalu askan bi après génne ne bu ma kenn waruma wax dara loolu foo ko teg. d'accord ñu wax ci euh, euh, biir PDS. Mhm. PDS sànq yaa ngi neen daanaka dafa am ku ma am ndey. kumba amul ndey mhm. euh, temps yi ñu dégg aussi euh, Babacar Babacar gay semaine bi mhm. muy wax ne nañu def Karim Wade mu nekk candidat PDS noo gisee loolu ndax ànd nga ci PDS kenn du ko tayle kenn du ko délégué jour bu PDS di am candidat pour les élections de 2017 day fekk ñu dem congrès militants yi ne waajaa ngi wala ndaw saa ngi du ñu nangu kenn et je le du ñu nangu kenn du ñu parachutel wala du ñu désigner un candidat préfabriqué du ñu ko nangu. pourtant ñu bëri dañoo jàpp ne aussi Karim ndax ni mu nekk ci kaso bi oraam dafa bëri que c'est le que qu'il a le meilleur profil. waaw qu'il a le meilleur profil ou qu'il n'a pas le meilleur profil loolu nag ko prouver en respectant les statuts et règlements du parti nañu dem congrès si les militants désignent que Karim moo war a nekk suñu. Euh, candidat mais ay léewoon moom lay doon su fekkee militant yi nee na Ndeye Astou Gueye moo war a nekk lii mais moom lay doon. mais du ñu nangu. kenn di ñu jo fii ngeen di war a xoolee ni ngeen di jaaree duñ ko nangu. su boobaa ndax yow Ibrahima Koné Togna. ànd ci. ànduma ah, si. àndoo ci ah. Karim Wade nekk nekk candidat bi. non àndu waxuma la ànduma si Karim Wade nekk candidat. ànduma ñu parachuté ko wala ñu désigné ko na ñëw comme yeneen i moroomam képp ku bëgg a nekk candidat. nga comp mu compétir man loolu laa ànd. ndax jàpp nga ne il a le profil. mais absolument Karim est un excellent travailleur c'est un bosseur nit da nga koy nangul lu nekk ñi ko dàq liggéey si réew mi barew waxuma nag moo fi dàq liggéey il y a nuance mais ñi ko dàq liggéey si réew mi barew il a un excellent profil moo tax ma ne na wàcce si arène bi xeex su fekkee moom la militant yi désigné. mu nekk moom su militants yi désigné keneen tamit képp ku militant yi désigné nañu respecté choix boobu mais choix bi du jóge ci kaw pour wàcc ci suuf parachutage duñ ko dem ñu wax ci euh, régime bi fi nekk. Mhm. régime mu euh, président Macky Sall euh, noo gisee seen doxalin bi ñu fi nekkee ba tey ak it noo leen ban ëllëg nga leen njortal. ëllëg bu pour man régime mu parenthèse lay doon. parenthèse waaw. Ah. régime mu parenthèse. Euh, parce que dinañ nar a ñëw toog ba installé ba jóge fi du ñu woon benn bilan et c'est décevant waaw mais defar defar nañ fi euh, parce que régime parenthèse bi nag dafa mel ni jamono ji parenthèse u wala air concrétisation la ñu toll parce que gis nañu la nga xam ne def def nañ ko jam ñaaju euh, ci ci sommet bi mu di ñoom ñoom tam ña ngay tabax. est-ce que c'était une priorité. man de maa ngi fàttaliku ñoom ces mêmes leaders là bu ñu newee si kujje bi ñu nekk ñun si pouvoir bi dañ daa wax les infrastructures kenn du ko lekk kenn du ko naan ñoom ñoo ko daan wax ne Sénégal si monument de la renaissance bi on a d'autres priorités mhm. ñoom est-ce que seen seen euh, saalu francophonie bi est-ce que c'était une priorité pour les Sénégalais donc euh, man ci concept boobu laa koy teg jàpp nga ne du priorité du priorité. ëllëgu président Macky sàll ci bopp réew bu Sénégal. ëllëgam su continuer ni ëllëg bu triste lay doon. triste parce que gouvernance doo ko teg ci fayonte doo ko teg ci kii def na ma lii dama koy def lii doo ko teg ci maire ñoom ñoo koy wax di ne yi dañ leen fal dañ c'est le président le mieux élu dañ ko fal à 65 pour cent le président qui est né après l'indépendance et 65 pour cent yooyu je rectifie il n'est pas élu par 65 pour cent des Sénégalais 65 pour cent des électeurs Sénégal mënu am presque 13 millions d'habitants électeurs yi nekk 5 millions ngay ne 65 pour cent des Sénégalais dañu wax 65 pour cent des électeurs il faut que ça soit très clair pour cent des électeurs inscrits ñoo fal Macky Sall mais pas 65 pour des Sénégalais il y a nuance donc su bëggee ëllëgam. mu am fi jow bu rafet na sukkandiku si bëgg-bëgg a coono askanu Sénégal ne mu def ko xëy def ko gontu di ko nelawee di ko finaane moo gën et que nit yi ko wër di ko dévier le chemin di ko tracer d'autres chemins defuñu ko lu dul lor ko mm-hmm. voilà coowal frère am ak euh, sa ak sa leader euh, mu di Aliou Sall ak euh, maître Abdoulaye Wade man du ma ko comparer noonu parce que Aliou Sarr tuuti na trop pour nekk euh, vis-à-vis président Wade. ah waaw tuuti na si trop pour nekk vis-à-vis président Wade nañu wax dossier plutôt liñ ko. ArcelorMittal. Arcelor dossier ArcelorMittal à Aliou Sall man noonu laa koy gën a présenter. ku yow tolloo ñu niveau. du tout. mais président Wade tolloowul niveau a Macky Sall bay tolloo niveau à Aliou Sall. Mhm. waaw il faut le dire clairement. d'accord débat boobu ma ko nangu. léegi coowal euh, ArcelorMittal bi ak euh, li maître Abdoulaye Wade di tuumal Aliou Sall. bon nañu euh, def yaakaar naa ko Aliou def na sommation interpellative ne dafay porter plainte tey gis naa ko ci seen journal que le président Wade apporté na ay réponses mais nañu bàyyi ju justice bi def travail am. loolu fu mu jëmee réew mi tamit kii xëcc fii kii xëcc fii. mais depuis bi Macky Sall ñëwee. loolu la euh, ñu gis réew Maître joxe ay app ne après francophonie bi daanaka may may na ko trois jours ngir mu wax ci ci ci ci la mu ko ne na ci na ci na ci tontu sinon leneen ak leneen dina am ndax ragaloo ne daanaka dañu bëgg a taal réew mi rek benn yoon. discours boobu ànduma si. parce que euh, rafetulu ma tamit euh, président Wade nu muy joxe ultimatum président Macky Sall. et que moom laay wax euh, Sénégal kenn mënu ko taal Sénégal jour bu amee problème ñu war ko régler sénégalais seen bopp ñooy régler problème bi seen bopp. d'accord euh, sànq ne nga rafetlu woo ko mais li ma li ma bëgg wax mooy ndax ragaloo que loolu situation bi dem ba dégénérer taal réew mi benn yoon. non situation bi ni ko mën a dégénérer li mën a taal réew mi yaakaar moom mu am yàlla na yéex. kenn ñaanu ko yàlla yàlla na mooy lii naroon am. nit yi bëgg a meeting nga ne duñ ko fi defee nit yi bëgg a marche nga ne duñ ko fi defee su ñu demee ba indi contentieux yooyu contentieux yooyu dem ba dajale loolu moo mën a indi implosion donc yooyu suñ koy éviter gaw ma problème dina am. dafa ma ni ci seen biir aussi du ñëpp ñoo ànd ci doxalinu maître Abdoulaye Wade ndax dégg nañ aussi euh, semaine bi Serigne Mbacké Ndiaye aussi ne àndul ci doxalinu maître Abdoulaye Wade mais bon bon. situé en fait avis ñenn ñi ça compte pas ci euh, ci doxinu président Ablaye Wade ci biir PDS. nest pas. mais wala ah amu leen leen rencontre yoo xam ne da ngeen ci waxtaan ngir kii joxe xalaatam kii joxe xalaatam pour yéen li ngeen li ngeen di wax nii à travers la presse pour ngeen wax ko ci seen biir. yaakaar naa su fekkoon waxtaan boobu amoon na si njalbeen du ñu gis ay positions divergentes à travers la presse mais su fekkee dañu tëb rek. ñenn nit yi wóor ko yaakaar ko ñoom moom PDS ñooy buum ñooy buum bi ñooy kay ñooy ne président war defal lii wala defal li ba di ko indi si genre discours yi mu koy tenir defuñu lu dul tooñ PDS lor PDS mais PDS du loolu et que nit yooyu di feeñ toujours c'est pas ça le PDS PDS militant de base am yi ñoo ngi fi ba léegi gëm président Ablaye Wade gëm PDS si boppam. loolu ñooñu ñooy sookul PDS ñooy soubassement PDS c'est pas nous les responsables yi ngay gis à la télé ou à la rajo ñoom ñooy essayer di def benn trafic d'influence pour wane ñoom ñooy gérer PDS. mu mel ni aussi Mamadou Diop Decroix dafay faral di dafay mel ni kuy déranger parce que ñenn ñi ànduñu ci moom li mu ko jiite c'est comme une vitrine ni ko seen ni ko euh, Serigne Mbacke Ndiaye waxee ndax loolu mooy sa gis sa gis-gis que bu amee front genre yooyu du moom moo ko war a jiite. non c' tout à fait le contraire man awma si fixation man je trouve que Mamadou de Decroix euh, baax na si boppu front bi du question parti bu ëpp doole mu nekk PDS moo war a jiital coalition bi donc nit sooy ànd ak moom da nga koy cëral tamit donc du parce que Mamadou Diop Decroix partem gën na tuuti ko parti PDS que warul jiite lii bi ah yooyu ànduma si man daal ku mën a jiite na jiite front bi. sànq euh, waxtu wi xam naa la ci des sa bëriwul sànq ba tey ci sa biir wax da ngay wax euh, sama yaay ngoone sama yaay ngoone. mu mhm. euh, nekk ci sa kër yaay ngoone boobu noonu muy muy ngoone Ndoye nekkoon fi ancien ancien ministre ngoone Ndoye bu Tëngéej seen relation lan la. mooy kon ni nga koy déggee sama yaay la ngoone moo ma boot moo ma tette bi ma nee xale. xam nga dafa dafa bëri ñoo xam ne dañuy wut ay yaay yaa ma neex. man bokkuma si loolu. lébu laa je suis moo la tette au vrai sens du terme moo la boot au vrai sens du terme wala. moo ma tette au vrai sens du terme moo ma boot au vrai sens du terme boot ma boot sama rakk bi ñuy wooye madame Aw Atia. nu mu eh, nu mu demee lan ngeen lan lan ngeen bokk. Ngone eh, bi mu amee ñetti at la ko juróom bu góor ak bu jigéen dénk sama yaay ba nu muy amee premier partie bagam. donc ngoone man la gën a bokkool ay frère am ak ñeneen ñi ñu mu bokkoon ndey baay man ngoone man la gën a bokkal. Mm-hmm. waaw nga nekk PDS. Mm-hmm. Ngoné ndooy nekkoon nekk PDS wala nekkoon nekk nekkoon PDS nga déggoon fi coow ak euh, maître lay Wade noo gisee coow li ak noo ko ak ko accueillir. boobu maa ngi li tubaab di maa ngi emmuré woon dans un silence. mais coom boobu moo taxoon ma génne c'était si trois ans yi boobu rek laa violé sama principe parce que dama ne woon tant que affaire bi mu ngi en justice kenn du ma dégg kenn du ma dégg dem biñ ko sosalee. ah sos la ci yow la sos bu wér péng bañ ko sosalee laa génne. waaw mais tuuma bi mu ngi jógee ci maître Ablaye Wade. Euh, tuuma bi génnewu si maître Ablaye Wade. ci kum génne ab Ablaye Wade ba léegi taxaw si télé wala si rajo wala si journal ay nit. ñoo ne maître Ablaye Wadawa moom tamit ba léegi. weddiwul weddiwul ni téele moo tax fu mu mënte jóge ay sos la man maa ko wax ay sos la parce que ni ma xamee euh, ngóone noonu la Ablaye Wade noonu laa xamee Ablaye Wade Ablaye Wade sama papa la noonu laa ko xamee donc moo tax ma ne ay sos la suñu duggoon si détails yi. dinaa si xuus lu bare pour wan la ay sos la. bisimilah ci détails yi may ñu ci lu tax nga ne ay sos la. sos la parce que la waxal ngóone yëpp dafa amul ngóone li ko intéressé woon ak Nioro moo doon ñu sargal président Ablaye wàdd mu am reconnaissance internationale boole ko ak ay nit yu baax ba bi mu ko boolee ak nit yu baax yooyu loolu la si am contact boobu toogul di xool nu ñuy nasal lu ñuy nocci. ñaari kilifa soo leen boolee ou ay kilifa soo leen boolee doo fa toog di li léegi kilifa yooyu séq dara def dara ba leneen am si ñu bëgg ko kaaj ji loolu moo tax man la ay sos la su may déglu discours yi day mel ni daanaka tuuma yëpp ay sos la kaso yëpp ay ay dil la tout est manipulation euh, pot banaan ay ay amoon de foofu ah man daal du ma généraliser ñaari yi ma maîtriser mooy sama dossier dafa mas a vide sos tuuma yi ñu teg sama yaay ngoone masula nekk. Mhm. loolu daal maîtriser naa ko parce que tamit tu sais. lan moo ciy nekk sa taxawaay. la moo comme yaa ngi comme yaa ngi PDS. lan moo si sama taxawaay. waaw wax naa ko nee naa ko léegi sa doom génne na parce que dama lëlu woon léegi sama mbokk lebu yi di wax dama lëlu woon léegi génne na. bu jàkkaarloo woon ak maître Abdoulaye Wade loo koy wax. naa ko ne li mu def dafa rafetul si diggante ma ma ngóone naka setal parce que waxul su waxee rek wax bi jeex naka setal ba mu set malgré sa tilimul mais na dindi tuuma bi. Hmm. yow tam dindi nañ sa tuuma. ci mhm. euh, ci wàllu yoon. Mhm. Euh, muy yem mook émission bi jeex ñu lay gërëm di la sant. bon manuma tëj émission bi te du ma gërëm euh, yenn nit parce que oyofal nañ trop sama cachot euh, bi si commencé muy sama jur bu góor euh, moo mënoon meeting tey soo amoon chance tooga sama wayjur bu góor nga xam ne amul ku ko dàq wax moo mënoon tey di conférence de presse mais defu ko dafa toog delloo lépp suñu boroom ñett yoon la ma seet see rëbës deful benn passe droit day jël per même rang comme ñëpp su tuuram jotee mu ñëw. te moom ci cinq euh, membres fondateurs. PDS la bokk tey ñaara des Ablaye Wade moom ñoom doog ngaay membre fondateur keneen koo dégg da dégg militant de première heure. bi mu ñëwee seet sama deuxième jour deuxième visite am kaso dafa ma ne def naa lu nekk pour nga bàyyi politique nga tëx c'est ton choix tu l'assumes. mais li ma lay dénk mooy dans la vie les épreuves qui ne te détruisent pas te renforcent je suis fier de mon père dama kontaan si moom si attitude am kenn mënul taxaw en commençant par Macky Sall ne laaj na audience laaj na passe droit laaj mu ngi jooy pour ñu bàyyi doomam ma su ko def. lan mooy rapport am ak maître Abdoulaye Wade léegi moom. rapport kon mag a rakk parce que ma ñu considéré est que ñoo ngi gisante est-ce que jokkalantoo bi ñoo ngi am. bon loolu mënuma si wax parce que dëkkuma sama pap dinaa ko seeti tout le temps ñoo ngi toujours ensemble mais duñ si wax loolu du suñu priorité euh, loolu laa mën a wax si sama wayju góor di remercier euh, sama seex ak caa parce que moom moo moo double cachot la ne woon moom. sa seex. waaw ah bon nga. seex la. Ah. double cachot jigéen jigéen la madame Aw lañ koy woowee double cachot ne woon. parce que li ma nekk kaso yi moom mu ngi woon si kaso lekkatul naanatul di jooy et lu nekk la def pour ma génn si kaso bi di remercier sama soxna euh, tëdd na deux mois principal samay doom bouleversé wu su ñu dem école métit bi daanu lekk di naan manqué fer am anémie jékki-jékki benn jour mu daanu ñu hospitalisé ko principal mu def fa deux mois waaw sa doom naka lañ leen doon kiiwee di leen wax seen papa sàcc la seen papa moo def lii seen papa li seen école. bu ñu daan jàngee école suñuy jàng. Mhm. donc euh, metti na si ku ñu tooñ. di remercier euh, Chantal Arial di remercier ni moo ma daan indi sama añ sama reer sama ndékki xale bu baax te defaluma ko dara. di remercier sama tante. di ñëpp ku lim juum. non il faut ma lim ñooñu. di remercier sama tante madame Nia Fatou Sow Ndiaye elle la plus de soixante quinze ans te chaque visite mu ñëw imaginez si sept mois di remercier Serigne Mar Touré. sama ancien chauffeur. d'accord et di remercier tonton Camara def na si lu nekk. mais émission bi maa ngi koy déjee Ndeye Assou sama benn ndijaay. war ngeen ko am muy tonton François Diouf qui était avocat général à la cour d'appel sama ndijaay la sama xarit la. d'accord dossier bi lu nekk la def mais yàlla jëlee na ko fi avant non lieu bi di génne. Mhm. moom laa déjee émission bi. Mhm. te yal yàlla yërëm. yal na ko yàlla dolli addul ay leer ñu lay gërëm di la sant euh, mu nekkoon suñu gan tey bon ci euh, sortie di Ibrahima Condé Tong Niang euh, seen kóolute mooy suñu mbégte mbokk yi gërëm nañu sant équipe bi ñu àndaloon El Hadj Modou Diouf Papis Mbaye Alioune Badara Ndiaye ci montage bi Oussa Assane Diouf ci ci li nga xam ne nag moo di coordination beeg réalisation bi di gërëm di sant Abdoulaye Bopp ci portrait bi jàngeen jëf beneen ay bés ak beneen gan ci rajo ak télé bi ngeen taamu leeru jamono Walfadjri